Demba Penda ak Demba ñoom ñaar euh, génne nañu single mais kenn ku ci nekk danga am euh, sa carrière parallèlement lu ñu bokk bokk bokk bokk bokk euh, dañu meññee ci famille yu artiste donc mën nañu tàmbali waxtaan bi Exidex merci en tout cas d'être là merci aussi Pape Cheikh parce que comme on dit la musique day euh, baax parfois artistes yi ñoom seen bopp ñu waxtaanee ko euh, li ñuy liggéey d'habitude dañuy gis souvent bu ñu génnee vidéo boo après du ñu am jot avec les soirées mais euh, pour rek lu gàtt rek dem ba booy xool bokk na ci macha allah artistes yoo xamante ne dañuy jouer plein temps. ci ancien yi waaw dañuy jouer plein temps c'est xale bu ndaw la macha allah mais di jouer plein temps. Ah. ba pare dafa am dafa am loo xam ne daf liggéey daf ko def ci musique boo xamante ne benn mag nee na ma artiste tant que ne mooy maanaam nga ngay tëgg di am ñaar nit ngay tëgg di am ñett di tëgg am ñeent tant que loolu rek doonagoo artiste mm-hmm. te moom bi muy tàmbali ñëpp xam nañu exactement donc il a compris ça très tôt jëlee responsabilité orchestre dafa diis mais nga gis mu téye rek di jouer di jouer di jouer ba tey yàlla may ko euh, muy dem fu nekk ci àdduna bi di fa euh, jouer donc loolu fierté la euh, ci parcours am donc voilà lu mu mënti am kenn duna wax ah bon mm-hmm. dan naan tout simplement il le mm-hmm. loolu moom vraiment am na ko mention spéciale bu ko neexoon euh, bénéficier wu euh, ci ce qu'on appelle le vent provocateur moom mooy euh, mag magam liggéey na loo xamante ne tey mënoon na toog rek barki lu ci. mais ñaar ko mag rakkam. rakkam di mos autant pour <laughs> dinaa ko plainte nag. si tu veux si tu veux mais bon pour man pour man pour man li li li am solo rek moom mooy ni ñu liggéeyee ñoom ñaar mhm. complicité bi ñu am ci yaatal bi à un moment donné ñu ne bon d'accord ku ne def nga sa carrière solo léegi nag ni ñu génnee benn single li ñu duggee ci waxtaan bi rek mooy est-ce album lay doon projet. wala tout simplement euh, den ko santiroon def ko tout simplement ñu mu bàyyi la rek nga nuyoo euh, Pendo. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi yëpp. di nuyu Exides Pape Cheikh Bijou. Coro Mbaar ak sama xarit sama lépp garmi donc garmi moom donc mos a nopp loolu moom. waaw dégg naa ko de ma mbay ak kenn bañu la. sama xarit la sama xarit. <laughs> am na koo xam ne bu ko saanee sax la bu gisee dina ma oh sëy bi am na. parce rek la ma am rek balaa ñuy jeexal. Ah. waaw <laughs> balaa <laughs> donc maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp di jaajëfal bu baax di baax SAS Dress li nga wax hmm. parce nag euh, loolu. si album la jëm parce que des na sax beneen bu ñu war a woy sama yaay donc kon man ak dem pare bu ñu si diyoo yi dañuy dem rek dañuy diyoo rek bu ñu ko santiree rek ñu génnee ko teg ko bu ma tee album rek man ma def ko sama album <laughs> yow nga def sa album waaw bi <laughs> moo am na 15 kon dinañu am ci woy rek waaw kon dinañu am soxla daay ah, <laughs> wax sànq Exidex bi ngay tàmbali sa carrière dafa yàgg hmm. euh, du sax léegi euh, c'était il y a très longtemps euh, li Demba Guissé la à l'époque def na 10 ans euh, xëj na amuñu ay images d'archives euh, yu yu Penda Guissé mais yenn saa yi ñu gëstu euh, gis la à l'époque bi ngay ànd ak sën mhm. gis la à l'époque bi ngay taasu mhm. la à bi ngay dem ci terrain bi loolu di dem di dem di dem di dem tax nga bàyyi ba période yi ngay doog a génne way alors ko bi nga ko waree génne yàgg na waa man nag je me suis dit dafa jot rek mhm. parce que yàgg naa ànd ak sën ñuy def yooyu yëpp di way may jiite ay caravane may tiw mais man dama doon fo rek dama ko doon fowee daal man dama doon jouer soirée muy fees te kenn gisuma ci kii génnewuma kaset génnewuma single génnewuma dara te may ma xam ne maa ngi jouer soirée muy fees maa ngi dem ay xew di ko way nit ñi jël benn extrait bu ndaw na di ko di ko balancer donc loolu nag bokk na si li ma dem génnee ko parce que bi may génnee euh, namoon naa leen bi fekk na xale génnee na pare di ko way ay Sadio Mané voilà léegi dama ko jiitu dama ko woon napp ko ci guddi gi ne ko nag daanaka suba ngay dem police parce que lii mi ngi BCA bi may wax ak xale bi

ma ne ko boo ko laalee daanu parce que même Demba bu ko jëloon dama koy teg ci yoon te yow lii nii police mën na la cee fekk parce que mi ngi BSDA boobu bi ma koy wax nekkuma BSDA ma woo Mbaye Ngom Mbaye Ngom ne ma suba ma ñëw fa bi mu ñëwee suba mu jox ma xaalis nag ma daw dem studio dugal ko donc Mbaye Ngom moo ma poussé pour ma dugal ko mais bu du woon loolu damay bàyyi rek booy bi Sadio Mané ko waaw te wóoru la te wóoru la et puis booy bi jël ko même jàkkaarloo jëloon na ko daanaka même jàkkaarloo xew yi bi nga koy tëgg boobu xewaluñu sax jàkkaarloo Dakar comme quoi euh, yàgg nga tëgg ak groupe yàgg def ci mhm. xew yàgg def ay concert ñu ngi mhm. fàttaliku sa ay première partie Salam Diallo ñu ngi fàttaliku bi ngay ànd ak Fadal ko woyal ak yeneen i clip yu bëri yoo xamante ne clip yi yaa ci nekk même maa daba man maa aw bi mu mujjee génne waaw mais booba tey da nga sentiroon ni waroo génne quoi da ngay toog ma ragaloon rek xam comme démb nu ma temps moom man amoon temps ba man pour man naa dem defi dem ma dem sama leneen voilà temps bi dama doon wax ay suba teel nga yeewu di dem ay télé di dem ay kii concert gëw ko woon dama doon wax loolu mënul nekk parce que man aw moon jot boobu dama doon wax tout le temps rek naa dem liggéey rek ñu fay ma dem doxi sama soxla donc loolu moo nekkoon sama affaire mais li doon nelaw ci man la tëte bi mu jotee yomb na ah macha allah euh, euh, mhm. parce que moment boobu tolloon nekkoon na ci tournée internationale bi et tout ça di dem di dellu si mais là euh, pourquoi nga jëkk si yàgg rek bon nga ne bon d'accord xaaral ma taxaw léegi nag jublu ci projet bi nga xamante ne moom ngeen tàmbali waaw boo xoolee euh, boo seetloo euh, d'abord muy nuyu euh, ñëpp di nuyu sama sama nijaay non dinaa nuyu nag nuyu ñu fi nekk ñëpp du ma cité sama nijaay daal nuyu naa ko nuyu naa Baye Cheikh nuyu naa ñëpp waaye xam nga boo juste rek pour expliquer ci loolu bi bon bi ma jógee juste ci ci tournée bi moom nag sax yàgg na boo xam ne kaa ñu def sa boobu mais bu ñu fàtte ne bi ma gagné Oscar de vacances en 2007 dio diwo man ak kii la woon man ak moom la ah, woon bi ñuy woy boobu sax am mbiri la mu nekk euh, man ma nekk jali mu nekk Fatou Mbaye <laughs> donc loolu c'était en 2007 donc boobu ak yeneen yoo xam ne jaaroon ngeen télévariété ak Maguette Wade day <laughs> jaaroon ci ay nen nag comme en 2003 ay 2002 temps boobu bi doon def en par midi boobu fi nekkoon boobu boobu boobu boobu télé bariwul site internet bariwul boobu xale yi bariwuñu <laughs> waaye nag ba xale laa ah. waaw ba xam nga c'est man maa teel a ñu bëri dama def keroog benn émission ak génération bu bees bi nii mais bu may fàttaliku ay Sénégal mais xale yi ñi ñi la yàlla def vraiment bu ñu demee ba période bi nag euh, bon mu ñaar di ko yéen a bokk ndey ak baay je pense que doole bi la ëpp d'ailleurs nii mu nekk ni ñu ko xaw a nii rek ak ni ko nit ñi jëlee donc euh, dem na sax ba même les nombres de vues sax dem na ba romb sama yenn clip yoo xam ne jot naa ko def te mu fay ñaari at après man nag ndekete mbooloo mooy waaye waaye waaye nag waaye nag non non non SDS waaye moom dafa génnee namoon naa leen xaw a suulu waaw waaw def suulu clip bi clip bi dafa yàgg après mu xaw a fay léegi nag ma ne pourquoi nga jàppale ko bàyyi ma may ko loxo mu génn moom mu génnee 15 moom dafa génnee 15 15e étage man ma fekk ko fa ak benn single 15 étage man ma fay moom 15 yi da nga ko dégg dégg sama benn rek moom 15 ans duma moromam te mën na def morom te duma moromam duma moromam dara ah fu mu toog ne mooma mag man ko léegi jëlal mageel bi et puis li neex mooy bokk ndey ak baay ba pare def dara euh, loolu defe naa euh, exemple la studio bi laa bëggoon fekk je te jure ambiance ñoom ñaar bi ñu juboo <laughs> euh, dañoo mel comme Maram ak Birane dañuy xuloo léegi pare enregistré euh, affaire bi génnee neex ñëpp El Hadj Mbaye Garnier man de Baye Cheikh vraiment bég naa lool ci nekk mi nga xam ne ni moom la ñu nekk ñoom ñaar parce que c'est pas évident ñoo xam ne ñii tubaarkàlla ñoo bokk fi ñu jóge ba pare déggu ba mën a def dara lii sac la ci fan kon góorgóorlu bu mag nag moo leen war ndax am na lu leen di xaar. Mhm, sas la. c'est important. parce que bokk bokku dëgg la mais bokku liggéey dafa dafa metti dafa metti dafay dafay tënku ci ay intérêt. loolu na ku ci nekk war na bàyyi sa borom xel. Mhm. ah dëgg-dëgg soo ko jàppee du ko it waaye moom tam bu la jàppee du ko du ko parce que teel ngeen jóg. gimmi mais xëy na yàlla mi ngi koy doog a dogal. mais amul kenn koo xam ne kii euh, mën nañ leen lim te ñu njëkk leen ci aar bi. amul waaw moo tax te lii rek moo am solo bu ñu bu ñu jàppee bañ a bàyyi. ma ragal naa daal dina baax. wallaahi man daal bëgg naa loolu ci diwo. je pense que mën nañu déglu. mën nañu ko déglu. Euh, euh, parce que clip bi génnagul benn mu ngi préparé tournée on va vous montrer les affiches dans quelques minutes. Mhm. Demba itam mu ngi ci ay projet donc Excidex si tu le permets ñu déglu ko. waaw moom yow la amour 想。 ku faj morom bi dafa tëdd di la moom bind ba pare ne ma léegi do li ñu war a xalaat bind man ko yow dalal bind rek yow bindal lu la neex moo ko fekkee si studio bi moom bu woyee pare man ko moom li nga woy bind yëpp du ma ko laal parce que man su ma bindee damay réer man su musique bi demee rek après man foofu laay kii yow xam nga sax waaw waaw waaw waaw xam nga loolu xëy na peut-être li mu tàmm di. voilà ak xew mm, ba après tu as les euh, phrases déjà mécaniques et tout ça lépp tout ça mais mais mais Demba en fait man li ma bëggoon euh, juste mooy léegi on peut s'attendre à que mu am ay soirée yoo xam ne dañu koy ci euh, projet boobu muy yéen ñaar su kaw si seen comme ni ngeen kii ni ma amee affiche ma côté yoo nga am sa affiche yéen ñaar ngeen mën a au moins am parce que en public quand même bu jublu ci ci d'accord d'abord bu mu ñëwee ci fi mu wax effectivement loxo noonu la man damay bind man damay yor ko ay oh, di bind. mais man su bindee ba pare comme ni koy waxee dama dem ba bind ba pare ñëw ne ko air bi jël naa ko def naa tout léegi yow euh, a tontoo xam nga <laughs> li mu a a woy si tontu yëpp moo xalaatal boppam man aussi ma jël euh, leen daal laa jox mooy dégg naa yaa ngi doxaan dama ko ne léegi jëlal loolu comme ça man ma xaw a mel ni ku lay xaw a ku lay xaw euh, baab ak yooyu quoi mm-hmm. mais li ci des yëpp moo ko bind parce moom noonu lay def même taasu yi sax des fois bu ñu ko joxee taasu na ko kii man damay tëgg sama soirée à part tëgg soirée à mais benn orchestre bi la waaye benn oh, waaye man moom du tëgg soirée te nekkuma fa

kilo rek non non non non kii maa ngi bëri man maa ko yóbbul moom dem pentola mu ñàkk yow moom dinañ fayaat lamp yi waa ji mel ni kuy rek eh, non man ngeen ñu ci mosal mu ngi internet même clip bi aussi euh, may wax gars yi ne ko clip bi hmm. euh, bon euh, son bi du moins mu ngi mu YouTube quoi hmm. xam naa ni li mu am ci nombre sax xam naa bu ñu ko annoncé euh, mu ngeen ko seetaan YouTube tàppe Demba Guissé wala Penda Guissé di nga seen ñoom ñaar ñun ñaar ñu ñu jàppante noonu donc euh, moo noonu xam nga <laughs> son bi ci compte lañ ko def hmm. clip bi sama compte lañ koy def parce que loolu tam YouTube tam day indi ay problème waaw te bëgguma <laughs> am ak problème ah? ñu ñëw ci projet yi Penda waaw euh, yaa ngi yaa album di préparé aussi ay spectacle même fii Dakar yaa ngi may wax keroog la dernière artistes yi. voilà sénégalais yi ak euh, fi nga jaar ak euh, ñi jàppale mais d'abord li koy jiitu mooy euh, tournée boo xamante ni yéen a ngi koy wàcc ay dëkk diggante Italie ah. France yaa ngi wàcc pour dem defi ay spectacle foofu. waaw maa ngi wàcc ah, di ci ànd ak ay yu baax a baax ah, te Babacar Diaspora ay. Bamba Feeling Dakar ak ay nit yu bëri ñu nekk Allemagne ñoom Khalifa ñoom Pape Torino waaw nit ku baax la ak xalifa bu nekk Allemagne donc ñoom ñi ngi ñëpp ñu ngi wàccal tournée boo xam ne man ma jaay sekk la wulli mm-hmm. ak euh, Liiru Jaan ak Dame Sène mm-hmm. ak Dame Sène waaw ñoo ngi koy waaj def euh, Allemagne Paris Italie Genève euh, waaw Belgique mm-hmm. dëkk yu bari daal la Italie Italie tamit. Italie si la bokk Espagne si la bokk Belgique. Mhm. ak Allemagne ak euh, Genève. le 17 novembre d'ailleurs. waaw. Ah, ci lay commencé après le 17 novembre ba décembre bi décembre bi tam am na beneen bu ñuy defaat mhm. boo xam ne bokkul ak ñi ko tëgg boobu Bamba moo koy def euh, Paris d'accord d'accord loolu bi euh, yaa ngi ciy liggéey boobu tey euh, en plus de woy ni ngay woyee noonu ngay taasoo waaw est-ce que pare nga itam ay la moom laa pare woon sax pour def ko nii comme comme man ak war a génn mu génn mais man bi ma jógee Amérique loolu moo nekkoon sama sama kii dama waxoon su ma amee trois jours Sénégal rek damay dem génne taasu bi pare na mais mère Ndiaby moo ma moo ma ci waroon a jàppale tuuti rek muy muy muy commencement bi voilà refrain bi moom mi ngi fi donc comme loo xam ne da nga koy dugg seen ni mère Ndiaby laa bëggoon parce que vraiment damay bëgg moom li muy li muy xalaat mère Ndiaby waaw wàccee peeg yi cooli tooy waaw loolu dama koy bëgg cool mu tooy xepp <laughs> wàccee peeg yi cooli tooy donc yooyu dama koy bëgg daal dafay am benn moment da ngay génnee loo xam ne nit ñi dañ koy fecc parce que boo génnee si dëkk bi ngay xam ne Sénégal bu ñuy déglu ba léegi stati doom mbaras boo demee Amérique loolu la ñuy teg seen xew yi <laughs> kon boo leen génnalee boo wàccee peeg yi dina neex nga ak ki toll ni man moo koy naan xëytaan goog li koy mit ndeke mekkin avancé na <laughs> boo jógee ci loolu incha allah 2020 bi euh, yaa ngi may euh, wax ni yaa ngi préparé guddi gu mag goo xamante ni euh, peut-être nit ñi anniversaire la ñu ko tuddee mm-hmm. mais yow sargal sénégalais yi nga koy tuddee voilà moom laa ko bëggoon def nag sama jour anniversaire sax laa ko bëggoon def mm-hmm. le 25 décembre mais mm-hmm. ñuy xaaraat ba ci kanam ah. parce que peut-être décembre bi du lay fekk nga nekk say affaire du su ma ñibbisi waatee man grand théâtre bëgg naa koo song ci kàttanu yàlla ak ah, a ngi nii déjà yaa ngi liggéey ay ay ay ay weer a liggéey ci programme boobu xam naa di nga ci ànd insha allah ak mm. télévision Futurs Médias yow sama fierté nga mm. voilà euh, ñu ngi lay euh, féliciter euh, di la encourager donc Penda Guissé en tournée européenne gis ngeen affiche yi noonu ci ay dates yu am solo yoo xam xamante ni mm. sénégalais yi nekk bitim réew mën nañ ko wàcc en attendant muy dellu si beneen single di génn ci taasu ak album buy génn plus spectacle sargal mm. euh, bu mu nar a amal euh, ci 2020 bi euh, fële mm. nga xamee ni moo di Grand Théâtre loolee ñun ñëpp ñu ngi koy pare Demba yow tamit yaa ngi ci sa ay projet fi mu toll tembe mm. léegi anniversaire bi dellu si waat waaw ah, comme ni ko waxee ak fii mu toll nii ana baaba maa ngi maa ngi baaba nga fakki ne nga <laughs> ngi bon baaba bu ndaw de baaba baaba baaba baaba laa baaba mu ngi fa baaba baaba laa baaba mu ma mu ngi lay seetaan xanaa xam sama papa bu ñu amee bu ñu amee day def nii rek moom moom day jàkkaaroo ak ba émission bi jeex loolu la ba loolu la ba Mawla Ba wax léegi. xam nga ok Mawla Ba aussi Mawla Ba loolu la ma wax léegi. donc man aussi euh, maa ngi préparé sama anniversaire en Sorano comme ci laa jaar chaque instant. Mhm. xaaral ma jaaraat naa jox moom mu def première partie ma dimbali ko aussi. waaw ah, sagar ko comme mosu ko mais bi waaw waaw première partie wa taalaay seetaan leen ko ci YouTube bi. <laughs> bi ma nee bëri jug ñi dañu ma doon wax Demba pourquoi bàyyiwu la nga commencé woy ay ñeent yooyu moom mu doog a <laughs> franchement parce que nag Demba dama mu woy borom mariage ak public bi jóg mu xam ne fii maa fi maa la ko gàllaaj Demba <laughs> danay ñëw sama kër di indi ay saafara ay lu ne rek nag ah. da koy dugal man ko loo dugal rek si di faa ngi ci buntu bi loo dugal da koy toj ah, na moon naa leen comme maa ko bind maa ko arrangé kay man am naa ci droit nee dafa bëgg a tatouage day bind fii Bakare daraman ci fii lay fii lay bind Bakare te def fa daraman ma ne ko xanaa adam loo ko ba càmm ko ci biir ba pare ma da nga def mbañ penn du dem moom tam nit ku baax la Pape dafa ko day xalaat nga xam ngeen mhm. euh, am na benn taas bu ma taasoon bëgguma ñëwaat parce que publicité la kii nii bokk na ci yi nga xam ne da koy bind moom mi toog nii mhm. parce que booy wax booy déglu en général bu ñuy wax comme kii ne laam génnee wala Fatou Gueye wala kenn génne ci otom ko doon dégloo donc boo ko dégloo ci oto bi ku moom kan la ci woy bi gën a mhm. jël ci woy boobu donc moom ci oto lay inspiré woo pour yeewoo liggéey mais ci oto bi la koy teg di ko taal yéen <laughs> Sénégal xamuñu ki mu bëgg. ah yow tam kii ba bii kii ba bii sans amour kii bi waay bi di génn. daf ko jaral mu dagg billet dem ba euh, France parce que foofu dañu ko doon pub kii mu dem jëndi cassette bi mu ne lii moo ko yóbboon France. day jooy Céline Dion carrément jooy carrément kii ba bii man man kii mus <laughs> <laughs> na fi ñëw di solu solu mu ne ma dimbali ko mode la bàyyi bon bëggoon naa ñu toogaat nag ba ci kanam mais malheureusement dañu war a joxe antenne bi euh, équipe yi nga xamante ni ñoo nekk Masalikul Jinaan je rappelle que tey la ñuy amal cérémonie officielle bi euh, loolu nag di ngeen ko mën a dund en direct ci télévision Futur Média tey ci guddi itam euh, xam naa na biir spécial Masalikul ji naan lañu koy def boo boo ko defee parce que xam naa la El ah, Hadj fan amoo benn jot ndax gouvernement Touba baa fi. président bi ñëw na ànd ak ministre yi ñoom abo. ñoom abo man ñoom abo a dégg ñoom abo soo sëriñ ñoo tam. xam naa ni daal Baye Cheikh incha allah. Euh, xam naa léegi xalifa Sëriñ na programme danañ Jinaan daal. incha mm-hmm. allahu taala bëgg nañ ko a daal suñu empreinte. voilà fa la ñuy fa la ñuy a dem alors balaa ñuy jàllale quelques anniversaire bay jël photo yi di ko compile pour tegal leen ko ci générique bi euh, mën nañu def tour de table euh, tàggatoog Penda Guissé ak Demba gàtt na mais neex na ñun tamit euh, bu Penda jógee ci tournée bu mag bi nga xamante ni mu ngi koy waaj amal dina am live bu mag bu ñu koy defal exceptionnellement ci télévision Futur Média loolu man sama participation lay doon ci carrière bi parce que fekkee naa démb fekkee tey et fierté weesuwul clip yi ngay def ak spectacle yi ngay def c'est bien donc bu loolu passé dinañu def émission bu mag doon euh, Demba def première partie bi. ñu toog waxtaan defee ko ni ñu ko bëgg a defee incha allah. voilà donc yan kàddu ngay tëjee. waaw incha allah maa ngi bu baax baax invitation bi di gërëm ñi fi nekk ñëpp ah, di gërëm tam ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan di gërëm nag ah, Masata ak Masayer Ndak Baye Modou Kane sama xarit boobu ne tubaarkàlla lu ma jàpp rek nga jàpp ci waaw sama xarit di xaritu bii ju Baye Modou Kane Masata ak ñëpp ñëpp ñëpp di sant ñëpp di sant soxna Kébé rendez-vous tam suba incha allah fële euh, la poète incha allah. ca géej ga ca géej ga waaw day fecc ba mu prolongé prolongé kenn musul gis loolu. <laughs> fa la Ngoné Ndiaye géwél di soirée. foofu daal El il faut que ànd fa suba. affaire bi daal ci géej gi lañ ko tabax. Hmm. da ngay baal ba pare bu la neexee dem sangu géej yàlla na fal la cat nga doog a ñibbi. Ah. loolu foofu damay amaale mbeer. sa cat wàcc. sa cat wàcc sa cat ah benn carte nga yor koy voté. <laughs> yow barki yàlla xoolal bu ngeen weddee li may wax suba ci guddi teel leen dem payoot parce que day teel a fees yéen daal ay vingt heures vingt et une heures. di lekki leen fa jën ba pare. toog xaar pend gisee ak groupe bu tëggee fajar balaa ngay ñibbi sangul ci géej gi yóbbaale mbeex. waaw xoolal kenn doon foo nekkoon. <laughs> gi dafa neex. merci donc kenn gisee suba bu euh, ngi fayoon euh, Demba yow tamit euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Safia Diatta nee na. Mm. ndax dangay tegi. weekend bi non moom dama koy remercier Asafia parce que moom mooy présidente fan club Demba Gis. <laughs> bu nekk bu nekk Zik FM. ok ok Asafia moom sama fan la ma koy remercier mu ngi gérer non non non. non eh, sérieux moom moo gérer sama fan club fii ci Dakar. Mm. mooy présidente bi. bilaay loolu leer na xam nga donc may profiter di leen remercier ah. Mm-hmm. léegi léegi yaa ngi wax kii yaa ngi wax léegi léegi sama jaar jaar sa jaar jaar xam nga. Mm-hmm. waaye yow sa jaar jaar nit mënu yow yow yow sa biographie nit attanu ko. Mm-hmm. ndaxte formé nga ña sax ñoo tegut bët. waaw ah. te xaju fi ndax ñu ngi fi ci Sénégal yaa ngi dégg yàlla na jàmm yàgg. <laughs> waa kër waa kër Kibet Diop lan laa leen def lan laa jotee ak ñoom. <laughs> Faba Gueye. Euh, Faba Gueye maa lay bëggee mais Kaja bu ndaw laa nam quand même. maa ngi koy bu baax ak ajatu Kibet Diop saa. <laughs> kooku suñu jaay la Cambérène euh, quartier quartier déggoo xam nañu ko euh, ñoom Kara ñëpp ay artistes lañu Samba nga Amérique moom tamit artiste la ñoom Jibi fan artiste la normalement ñii ñoo gën a garaaw waa kër Ndiouga Ndiaye ñii. am nañu rakk yuy tëgg am na ñuy fecc am na ñuy woy am na ñuy taasu c'est une famille d'artistes mais demba lañu xam ak euh, Penda Guissé yàlla yàlla la fal leen cat euh, single bii ngeen di doog a euh, génne fierté la je rappelle que Penda bu ñibbisee dinañu amal spectacle soirée émission bu exceptionnel boo xam ne dinañu gën a waxtaan ak moom ci carrière